علي يا متاح علي يا خير والي أجب دعائي يا ذا الجلال يا متاح علي يا خير والي jërë ngeen jëf mbokk yi ba tey ñu ngi fii ci Masaalikul Jinaan waaye nag ñu ngi nii ci waxtu yi nga xamante ni ci la ñuy waajal bépp bernde boo xamante ni rek fas yéene nañ ko jox murid yi nga xamante ni ñoo fiy teew ngeen gis noonu sëriñ bi saa su nekk bu bis bi di ñëw mu ànd kook waa daara Mawaahibul Xuddoos yi nga xamante ni ay jàmbaar lañ ci seen taxawaay bu am solo ci njiital sëriñ Ablaye Diop macha allah ngeen gis noonu bernde yi mbokk taalibe yi waajal ko ci wàccaa yu mucc ayib yoo xamante ni ku fi ñëw rek di nga xamante ni ay jàmbaar lañ ci li nga xamante ni noonu lañ saytoo lépp lu jëm ci wàllu bernde yi kon xam naa dañuy jox sëñ Ahmed Dame Gueye fexe ne dugg ak ci waañ wi nga xamante ni waa daara Mawaahibul Xuddoos jiite nañ ko ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne ku fi ñëw rek xam ne saytu nañ ko saytu bu am solo ngeen gis noonu benn yi di door a noppi ñu koy dugal ci baas bi nga xamante ni fi la ñu fas yéenee fi la ñu doon jàngee alxuraanul karim ak xasiida mbooloo yi bàyyi ko fenn fu nekk ci réew mi ak li génn réew mi kon du ñu def lu moy rek fas yéenee ànd ak yéen dëgtal leen berne yi nga xamante ni mbokk taal bi tey berne nañ ko ci bis bi nga xamante ni mi ngi am fii ci Masaalikul Jinaan خن عديدا سن عديدا سدن اقتداء بلا عناي سمع جفاء إلى جفاء طيب مساء طيب خناء jërë ngeen jëf mbokk yi ba tey ñoo ngi waat fii ci Masaalikul Jinaan ci bisu xasida bi nga xam ne waa ahlu xasida gépp ñu ngi koy def ci njiital Serigne Abdoul Ahad Mbacké moom Serigne Cheikh Abi ñoo ngi waat nag fii ci waañ wi taxaw ak sunu jëwriñ Serigne Modou Diouf ku wax bisub sant wax bisub xéewal waaye ku wax bisub xasida waaye tamit wax bisub xasi xéewal ñu gis tamit eh, bisu Masaalik bi bokk ci bis yi gën a rëy ci fii ci Sénégal rawatina sax ci àdduna bi ndax mooy bis bi nga xam ne bis gën koo mag ci Ndakaaru yombul bu dee am na fi ndax ahlu yëpp ñoom ñoo ko bokk ñu dikkaat fii tamit ci waañ wi fekk fi jawrin Serigne moodo ci taxawaay bu rëy bi ñu am xam naa Serigne Modou ku gis bisub xasida bi nit ñi bàyyi ko fu ci nekk ci réew mi ak ci bitum réew ay junni junni nit di fi teew ana ban waajtaay ngeen am ci loolu ba ñëpp mën di eh, waajtaay wi nga xam ne yéen a ngi ko yor muy liggéeyu waañ lépp di mën di eh, jaar yoon waaw aasubillahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim barke borom Tuubaa xanaa di sant Serigne Touba bu baax a baax a baax di ko jiital suñu sant Euh, li ñuy wax ci wàllu waañ bi nga xam moom la ñu suñu laat féetale mooy saasu bu jegee rek ñu def ci ay daje waxtaan ci tënk ko ba saasu ne mbokk taalibe yi fi ñëw ñëpp mën a bend bu baax a baax ndax moom dafa doon loo xam ne li maam Cheikh Fall waxoon dabe ndab kon nag daa bokk ci liggéey bi te kenn ku ne fa nga nekk moom sa moroom moo bàyyi ndax tey ñii durus xasida bu ñu durusoon ba noppi ni ñu togg ba noppi te amuñu ci aaju su boobaa kon dana dofetal liggéey bi kon kenn ku ne fa nga nekk sa morom moo la fa bàyyi moo tax ñu koy waajal daal def ko wàccaay yu mucc ayib ba ñëpp mën a sant Serigne tubaa benn yaatu duñ ci am xaaj duñ ci am seen waaw daal mooy tënk bi ci wàllu liggéey bi fi mu toll. waaw jëmmi lim bi moom mm, xam moom xaw ma ndax euh, wax ko dana kii ndax dafa doon mbir moo xam ni comme sëñ bi saa su ne ci loxoom lay nekk waaye daal euh, tey moom taal nañ ñeent fukki mbana ñeent fu mbana lañ fi taal. ngir bendal mbokki taalibe yi te daaw it e, Sëriñ Tuubaa dogal loolu lañ fi taaloon waaye desoon na ren it ñu ngi koy séentuwaat ak des waaye daaw ñëpp xewlu nañ ba desoon na fi ñeenti mën a waaye ren daal ci ñeent fi mu mën daal lañ fi taal bisu tey nii waaw ñeent fi mu mën lañ fi taal jërëjëf Serigne Modou ci taxawaay boobu nga xam ne ñoom amee nañ ko ci liggéey bi te mën nañ ne li ci ëpp ci waañ wi la ndax ñi nim ko waxee rek ñëfale fiyee leen fi bàyyi ñoom it ñoom lañ fi nekkal kon di ñaan rek lépp dajee ngërëmal borom Tuba kon xam naa Serigne Modou rek ci kaw gàttal rek euh, mu indilaan ñu benn euh, jàngat rek ci bis waaw bis moom sant Serigne bu baax a baax ndax xasida yi moom ni ko sëñ Mouta waxee rek de yi mooy sëriñ bi kon nag képp koo xam ne su moom dalaa mooy tawfeex nga ciy yëngu moo xam da ngay durus mbaa da ngay jàpp ci lépp lu yéwén la ñuy durus ndax lenn mënta dem bàyyi morom fi ne toll nii ba ci ñi nekk ci wan ak di ko toppatoo ba nit ñi mën a yeeslu mën a jàng xasida yi waaje seen bopp lépp leer mun cee ñàkk kon man gisuma ci liggéey bu métti mbaa liggéey bu yomb waaye kenn ku ne fa nga nekk yaa fa nekkal sa morom loolu laa laa gis di ci sant sëriñ bu baax a baax nag ndax ngërëm la loo xam ne kenn ku ne lañ ko sas ba ci defee it suñ ko boole rek lu ma gàtt gàtt yéen Malick Sëriñ Tuubaa mën cee tàbb ñu am ci ngërëmal sëriñ bi kon daal coono yeeg yitte jeeg daje yi lu ko jiitu ba bis tey lépp liñ ciy sàkku mooy ngërëmal sëriñ Tuubaa waaye nag ci njiital Sëriñ Abdou mi nga xam ne ñun ay dongalañ rek féete nag ci daayira Mawahibou Khoudoss ay at a ngi mu féesal féete lañu waañ wi ñu ciy góorgóorlu te ñu ñëpp di ci sàkku ngërëmal sëriñ bi moom li mu ci bëgg daal di ko sàkku ba tax mu sas ñu ko lam ci bëgg Sëriñ Tuubaa def ñëpp ñu am ko ci baaxu borom Tuubaa Xaadimu sol jërëjëf Serigne Modou Diouf lool lépp di firiwaat li nga xam ne mooy waxi borom Touba ja mooy yaa rabbi jaxalil muridina maha fi xistikal asini wa samlañ ma kon bu ko defee yéen ñi nga xam ne yéen ak ñuy topp ñu dikkaat ak yéen ci sun yeneen i élément wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu